njol makka yaa leen gën hawa kulla majdin lil wara wa jalalatin mm. والجلالتين يا نبي صلى الله عليه وسلم وجاء بآيات محات كل حالة فمن شك فيه فهو علف الضلالة محمد صلى الله عليه وسلم أفي الحق شك بعد ألف الدلالة تحدم ذكره مدى الدير يقرأ borom medina jaraway borom medina jaraway ala ahmadin min rabbih salawatu way def len ni rasulullah way alaihi wasallam ala ahmadin من ربه صلواته يا النبي صلى الله عليه وسلم لقد عظمت في قلقه بركاته لقد بهرت شمس الضحى معجزاته يا النبي صلى الله عليه وسلم براينه لا تنقضي وحبات ينن sallallahu alaihi wasallam fa ayatu suhbu wa amlu suhbu motax air bobu ci laway taraka borom medina len gen ni ni tayaman bi wal tabarruk bismi ولا تعد في شيء طريقة رسمي صلى الله عليه وسلم فقد قسم المولى لو خير قسمي ترقى ينين يكنا ترقى ينين يكنا taraka yonen yekk na taraka yonen yekk na taraka yonen yekk na taraka yonen yekk na taraka yonen yekk na ila sabqi tibaqi bi jismi ba muy xotti asamaan yay dem malaaka yaa ngi koy tàccoo tàccu leen yonent waxat ashirafat am laa wa tajallati kooku mooy sayduna muhammad rasulullahi moo tax alaaji ngañ mbaay mhm. jigéen yàgg naa baax mhm. umu haani jigéenu saydina lin moo invité sayduna muhammad rasulullahi jibril fekk ko fa ni ko mhm. Mouhamad sa boroom moo la invitation bu dàq bi kaw asamaan yow sayduna Mouhamad rasulullah sallallahu tax alaaji ngañ mhm. président buy tukki day ànd ak journaliste yi mhm. ba muy dem alquraan a ko dar subhaanallazi asra bi abdi layla mhm. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنرى من آياتنا إنه هو السميع البصير تركا wooteel ma way laay way taraka yoneen yekk na benn aplo jibril nis mu fëgg asamaanu benneel aadama moo ko teeru asamaanu ñaareel Iisaa ko teeru asamaanu ñetteel yuusufa moo ko teeru asamaanu ñeenteel idrisa moo ko teeru asamaanu juróom haarona moo ko teeru juróom benn muusa juróom ñaar ibrahim pasifi layla tellati kaanil ilmu taarifiya alal bura استوى بآدم مرعي سيوسف وعانو حين سمارنا موسى والخبير رحيم وسليا يا إلهي اكسوك باي باي دون وسيا أبدا أبدا أنا محمد أنا مختار في القدام بعدم مر عيسى يوسف وعانو حين سمارنا موسى والخبير رحيم وسليا يا إلهي وسيا آه، أبدا أنا محمد أنا المختار في القدام